salaamaaleykum wa rahmatullah euh, Fallou Ndiaye vice président Touba ca kanam chargé de la communication. Euh, tey dafay bis bu am solo ci Touba kanam ndax euh, kenn ku ne ni nga ko xamee Touba ca kanam ba mu jógeek léegi li ko tax a jóg du lenn lu liggéey Sëñ Touba ci dëkkam bi ci fànn yëpp nag waaye Touba ca kanam kenn ku ne gis na ne ab yëngoom la ca gën a fés booy xool mooy wàllu wér gi yaram mu ñor ko lool ba ni nga xam ne noonu lañuy ñuy ay bërëbu fajukaay di ko def ci dëkk bi nga xam ne fi mu toll nii ñu ngi ci ñeent bërëbu fajukaay yoo xam ne Touba ca kanam mu ngi koy defar ci dëkk bi noonu la ñu sóoboo ci jàppale waa santé euh, ñu jublu ci période boo xam ne muy màggal Touba nga xam ne àdduna bépp dañoo riir fas yéene ñëw tuubaa euh, Touba ca kanam bëgg dugal loxoom fépp ci màggal gi euh, ni ñu ko defee ba leeralee ko noonu sëriñ Bass Abdou Khader démb ci Touba ca kanam génne téeméeri million ak juróom def ci biir Touba ngir jàppale askan wi ci màggalu Touba muy li jëm ci wàllu leeraayu dëkk bi lu jëm ci ndoxu taataay ak lu jëm ci ndox mu ñuy naan euh, ginnaaw loolu it jéego bi tamit da cee bokk euh, ñu dénk ko commission sociale ci njiitum sëriñ Mourtala moom Cheikh Abdoul Fattah euh, muy fexe ba waa Touba yëpp ñu dajaloo fii ñu maye deret ngir ñi nga xam ne suñu borom dafay dogal ñu soxla ko ci màggal gi mu bañ fee manqué ndax Sëñ Tuubaa bu wootee dara warta manqué ñi nga xam ne dañ fi ñëw loolu tax Tuubaa ca kanam lii bokk ci wàccaayu màggal gi mu askan wi ngir ñu ñëw maye deret ànd ko waa banque de sang te lu wax ne Tuubaa ca kanam moom e, nii mu koy defee fii e, ci maye ak deret e, ña nga yëngu ci yeneen yëngu tey boo demee fële ca mbaare ca saam ña nga fa nekk di sëkk boo demee ca kër gol ña nga fay tabax poste santé côté bu ci nekk Touba ci kanam mu ngi ciy yëngu ngir lu jëm ci développement Touba lii nag di initiative bu am solo boo xam ne waa commission sociale bi mooy troisième année eh, ñu di ko def di leen sant bu baax di leen ci jaajëfal eh, cant gi nag ñu ci tuddee sëñ Mourtala mi nga xam ne mooy kilifa gi taftal ci sëñ Moustapha Amar mi topp ci moom rek daanaka day day yóbbaale ñëpp ak sëñ Bara Fall mi nga xam ne leen eh, l'infatigable nga xam ne moom boobu ba léegi noppalul suba ngoon ñu ko ci sant bu baax di ko ci gërëm. barke Serigne Saliou Mbacke man la soxna maam Fatou Diop moom Serigne Saliou Mbacke chef de service banque de sang hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba. waa Touba ca kanam comme niñ ko ma defee bi mooy seen ñaareelu édition ci safar waaye balay boobu dañ daan def journée mondial ñu ñëw di maye si suñu biir hôpital. tey jii nag dañ fee ñëwoon pour waajal màggalu Touba gi ku ne xam na ni bu Serigne Touba wootee moom ñëpp ay wuyu si. léegi nag yenn saa yi yàlla def mu am ay accident ak jigéen ñi nga xamante ni ñi dañuy toll ci diggante coono màggal gi jàpp leen ñuy matute avorté soxla deret ak xale ya fa tëdd waa Touba ca kanam xam loolu di liggéeyal sëñ Touba fekk ñu ñun tamit ñu yàgg koo liggéeyal depuis ouverture banque de sang bi 2005 mu ne ñëw leen ñu ànd liggéey moo tax tey jii ñu ñëw pour wut si fi deret ci subaak léegi fi ñu toll nii amagum nañu 60 mooy defe naa juróom benn fukk ci la ñu tolloogum fi mu nekk nii. waaw moom kenn ku nekk ak ni sa yaram di réagir man jour bi ma njëkkee maye damaa xamoon. jékki-jékki rek gis ñu may xirmali te léegi maa ngi maye te defuma dara ñenn ñi tiitaange bu ñu gisee deret yi génn dañ naan lii lépp di génn si man mbaa dina ma jëkk ko defee ñu miir ñenn ñi tamit day fekk ne peut-être am nañu feebar boo xamante ni ñun bu ñu lay seet xam nga mën nañu seet nii jëmm ji xool li ñu gis si suñu bët mais mën nga yor benn feebar bu nekk sa yaram te xamuloo ko kooku ñun bu ñu demee ba analyser ko ñun ci ëpp dañuy gis ne dañu amee woon hépatite avant ñuy maye te xamuñu ko loolu moom moo koy waral ku nekk ak sa yaram ni muy réagir kuy maye deret daal sëñ bi na nga nekk nit laay wax parce que du ma wax jullit du ma ndax nit mooy maye deret na nga am diggante fukki at ak juróom-ñett jëm juróom-benn fukki at na fekk ne sa poids ëpp na 50 kilogramme na fekk ne yow mi maye deret amoo benn feebaru deret moo xam tension la moo xam diabète la moo xam drépanocytose la wala benn feebar boo xamante ni bii war naa mën la tax ba yow doo maye deret. rek wante deret moom d'une façon générale Sénégal yëpp laay wax waaye ñun nag ñun ñi ngi sant yàlla. ndax am na ci hôpitaux ñun ba ñu soseeg léegi mille 2015 la maanaam ci fukki at ak ñeent la ñu am am na hôpitaux yoo xam ne 50 ba 60 ans ñi ngi fonctionné ñun li ñuy am ci ñi ñuy may deret par at ñoom amaguñ sax genn wàll gi kon nag ñun liñ naan bu ñaan bu nangu sona borom ñaan Serigne saali moo ne woon ba ñuy ubbi hôpital bi dem leen da ngeen dem ba ku soxlaati ci yéen lay ñëw te am nañ firnde gi ndax bu weesoo centre national de transfusion sanguine bi nga xam ne bu mag ba nekk ca hôpital Fann nga xam ne moom moo moo ñu coiffé ñun sax mooy suñu responsable ñun seet ñun Touba ñooy deuxième banque de sang Sénégal te ñoo fi mujjee juddu kon nag sant yàlla bu baax. loolu la ñu war a def sensibilisation parce que OMS dafa ni téeméeri nit euh, junni nit yoo jël. fukki yi dañoo war di maye deret bu boobaa kenn du fa soxla deret maanaam banque bi kon day fonctionner sans soxla deret ñun nag fi mu nekk nii mën nañu 10 000 dons la ñu waroon am fi mu ne ñi ngi nii ñi ngi ci 7000 maanaam manqué nañu gabu 3000 boobu moo tax yenn saa yi bu nit feebaree ñuy woo ay mbokkam léegi bis bu ñu demee te nag kanam la jëm parce que bi ñuy tàmbale ñu ngi woon ci 1500 di dem ba 5000 6000 ba daaw 6600 te ren dinañ am 7000 bu ñu demee ba yegg fa bu boobaa dinañ te xam nañ ne dinañ fa yegg ndax ñaanu Serigne Saliou ndax firnde gi tubaa Ca Kanam wane na ko tey tàmbali gi metti na wër bi doo am loo dugg ñun benn oto lañ ñuy jox yenn saay mbaa ñaar waaye benn bee ci ëpp nga wut ba pare taxaw di xaar beneen bi ñun ak bagage yi ci biir Touba Ca Kanam ñëw tey ji may ñu oto bu ñuy wutee te loolu sëñ bi ñëwoon na lépp dina ne fa fekk te firnde gi mooy bi ko président bi di joxee suñu borom mi ngi wàcc xéewal yi ndox mi mi ngi taw kon dina sedd guy kon yaakaar nañ ne ñun murit lépp lu ne dina am ci Touba.